booy. waaw maa lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tey ñu gis nga taxaw ni takk photo Siteu ak kan ak kan. nga ne tur bi nan la. Mbéri Ñang. Mbéri Ñang. waaw kii ci côté bi nii mooy Mbay Ngoy Ñang. téer a réer. Siteu daanaka moo ko jàngal lépp. Mbapat ba ci aareen. waaye yàlla nag def ko neex ci moom. bi muy bëreeg Zarko dafa gaañu rek combat bi taxawaat waaw Zarko ñom ñaar bi ñuy bëre seex na mat di mais mais mais sita gëm rek daana duma am ñaari defet billahi wallahi ki ño bokk ndey ak bay mbay ngoy ñang ñoo xam lam da ci sita sita suñu kër la yoro suñu kër la yoro sama euh, euh, euh, ki ni magam bu góor magam bu góor ño bokk ndey ak bay moko jangal ñaw jangal ko ñaw bi mi am juroom ñetti at ba di ko juróom at lako mamam ara jox ko ni wax Ali Sakho ñang Ali Sakho sama rak la ño bokk ndey ak bay moko jangal ñaw mbay ngoy ñaami dem di ah, ki ko ñew ñew jël ko ci loxo mboole ci dem diko jambal jàmbal ay ay ay di ko jàngal ay kii mbappat ak ñom deug la tay tay nak sida mu ngi ak mbeur papa saw tay lan nga ñu wax ci combat bi ak lan nga yebee sida mu dem ci lamb sàlla tubar fa kala damay ñaan damay ñaan ci yalla barké bayam liggéeyu ndayam damay yeb sita bu démé ci arène bi han ah, bu démé ci arène bi na bëre te bu mu tiaxan te bu mu fo parce que ki mi bëreel mbeur mu mag la nak dañuy ñaan yalla rek ah soobe yalla gën tuba ndam li mo koy jël ci dara jey yeneen tamit yàlla sallallahu alaihi wasallam da koy door mu daanu ci katanu yalla lay fay tour bi nan la man la su koy ñang magu mbay ngoy ñaa mi nga xamne mo moo sita jangal ko mbapat ba rek mo len kon ñun bisu Siteu dañuy yëngal léegi la tamay waalo waalo yi taxaw suñu buntu kër ñëw ne dañuy sargal Siteu sargal Mbaye Ngoy Niang mu nekk loo xam ne si lu ñu bëggee la lu ñu kontaan la te liñ koy yabee nag mooy Papa saw mbër mu mag la te dafa am caay-caayu làmb waaye lu mu am caay-caayu làmb dina xam ne ñu Siteu mii mbeur la mo xamne si mbeur ko jangal mbeur ko jël yobbu ko ba nga xamne mo nek ci arène ba ta mom xalé bu gëm bopam la xalé bu xam lu muy def la. mais muy bëreeg mbeur mu waané Papa Sow. dafa waané déggo li ma la wax néna naa dafa am caay-caay lamb waye ñun Siteu ko gëna waané waane gën ko nek xalé xam li muy jar xam li mu bëgg xam li mu bëgg fi ci Baliya bi te li mu bëgg yàlla waaye nañ dem ba ngeen wax na leen dem rek tey ñu ngi fii nii buddu kër mbër mi ñu dem ah comme niñ ko waxee ñu ngi buntu kër mbër mi fii ñu taxaw mooy buntu kër mbër mi boo xoolee suñu ginnaaw barrière yaa ngi nii seen sekk ci porte bi Baye Fall yaa ngi taxaw ñu taxaw Maysa Seras ku ne xam ku dégg Siteu dégg ko ci moom muy Maysa Seras Maysa maa ngi lay nuyu tay lan ngeen di waajee seen mbër laat siyaar nañ la si jamu, si waajal nañ ko ni wow, ko war a rek waaw di ñaan ndam dal rek waaw tey nan ngeen di génnee mu gis combat bi mu yàgg lool ñu mu taxawal ko mu pusaar ko ñu pusaat ñu pusaat ko mais tey dañoo ñëw mu gën a jéggi dayoo maanaam waajaay bi li mu yàgg moo tax mu mel nii wala Siteu chaque jour bi génn nii lay mel. Siteu xam nga ni Siteu Siteu àdduna la Siteu Siteu Sénégal la moom la xale yi naan yàlla min borom dëkk bi kooku bu xewlee jinne yeeg ñëppay ñëw moom bu xewlee moom ñëppay ñëw te bu soobee yàlla stade di nga fa gis lu garaaw di nga gis tuus lu bees gis lu bees tàkk si Siteu Siteu daa màgg ci lépp lan la ñuy xaar ci combat bi combat bi dañuy xeex wala dañuy bëree te Siteu bu ngi bëree mbër xam ne mbër waada la Papa Sow ku ne xam ne dafa sob te lu ko njuur la nan ngeen di préparé combat bi Papa Sow ni ngi koy préparé ni ñu préparé ay moromam rek ñëw dal waaw jox ko cër bu mu moom ñu duma ko nank daan ko nank dem ñibbi. est-ce que duma Papa Sow yomb na may si. Papa Sow mooy kan nu Zarko nu ko Siteu def Zarko moo ëpp doole dàq ko bëre te Siteu ba ko jàppee da ko duma daan ko. ñun Papa Sow taxuñoo jóg ñun li suñu kanam moo ñu tax a jóg barke rasulaay mbër bu ñuy topp ak mbër mbër mbër mbëru koñ ak mbër boo xamante ne dañ lay topp duñ benn kii mbëru dëkk la te kee mbëru ruq koñ waaw Siteu na ko Sénégal yëpp ñaanal Siteu na ko Sénégal yëpp ñaanal ndam na ko Sénégal yëpp ñaanal ndam waaw kontaan naa la amal jàmm bu baax a baax war a tey ñu gis ngeen ñëw fatt fii barrières yi kenn am fi accès tey mën na ni combat bi daa am lu mu jaral tarkindaay wala déet dëgg la waay rek tey làmb moo ñor quoi dañoo décider làmb ñor dañoo décider làmb billaahi tey na gars yi waaj gis lu doy waat sax tey ñoo ko moomee jàmm gën a aye tekki bi tekki bi lan la wone si tarkindaay waaw logique la tekki bi logique la quoi moo ñuy may lu ñu bëgg tey nañ gis lu garaaw dañoo pare sax pour bale bu buñ paree. pour bale ko. ba mu set daañu kon li ñuy gars yi di xaar ñu naan tarkindaa yi bu ñu ñëwee làmb coow li noonu noonu nan nga leen di wax. tey dinañ gis lu leen yéem dinañ ñëw ci yar ak teggin daan Papa Sow bale stade set tàggu leen ñibbi si jàmm gën si jàmm ak salaam fair play moom la ñu woote gis nga dans la calme tey bisu ndam la lépp dal ak tey incha allah rabbi. li ñuy xaar ci combat bi xeex wala bëre. tey di ngeen gis lu ne tey ngeen xam kuy Siteu tey la war a wane mën a wane bërëm gars yi ràññee xàmmee incha allah rabbi. jërëjëf. ana mbër mi gis ñu ko boobu ba léegi xamuñu fu mu nekk ñi naan kër yaayam ñi ngi naan muy këram. dëgg la waaj rek da ngeen ñëw nëbbu mbër mi. waaj rek làmb jee ko laaj quoi waaye ñu waaj rek mais mbër mi moom mi ngi si jàmm pare na sax ñu toll nii esaar rek a des allah si kanam tuuti rek soobee yàlla. mu ngi noonu taxaw tarkindaa bi di doomu nday Siteu am na lu muy expliqué talatul dara lu dul làmb ji ndeysaan tarkindaa yi koo ci xool koo ci xool tese tam dañ ci gis Fodé ndam si yàlla ci yàlla na ko suñu borom yërëm xaare ko àjjana ndeysaan waaw kooku boo xoolee xam ne lu mu bokkal mbër siyaar naa la yaa si jamba? ba waaw maa naka coono nan ngeen waajalee seen mbër Siteu. waaw naa rek waajal ci xel dal la def dëgg si dal la des ay quelques minutes daal la confirmation des quoi mu mel rek lañ bëgg. am luñ gisul si tarkindaay dañoo ñëw fii mu def tekk ba xam. journée laaj journée bi laaj at lu mu mais yàlla baax na daal si kanam daal confirmation bi incha allah daal. mais ana mbër gis ñu ko teguñu ko bët xamuñu fu mu nekk ci dëkk bi. moom daal réer gaay na. gaay yi nee nañ gis ngeen taxaw fii rek ay mu ngi fi mu gis ko sax mbër mu ngi fi mais xam nga dafa làqu loolu la combat bi laaj rek ah waaw ca yow. ndeysaan Coly Faye a ngi noonu ci porte bi. Coly mu ngi sol tiset si Coly Faye. gars yi wax ak ñun demal waa yow yaa tey. ndeysaan Coly Faye a ngi noonu tay kuko xol xool amna lu muy waj bis bi ndax boo xoolee booba léegi mu ngi dugg mu ngi dugg ak a ko Coly Faye nuyu naa la waaw jambar ma lay fay tay nan ngeen waajee mbeur mi sita wa comme nan waajee nan ko mbay rek ndax bis bis mom jaaxal ñu mom fu sax bis bi am nañ ko waaw li bis la comme yeneen bis rek mais da ngay waaj ak dal ak tay waaw di wote di wote dal ñu wote la paix gis nañ gis nañ loolu parce que dañoo ñëw fekk tarkindaa yi ñoom ñëpp ñu def tek manam tek bi lan la xala moy problème bi ñëpp dañoo bàkkee benn affaire te change ñun dañoo ñun nañ niveau boobu léegi ay mag la dañoo màgg ñu nekkatuñ si loolu lamb ji li si gars yi xalaat sax du si am xam nga mooy problème bi ñaari nit histoire ñaara koy def mais ki bëgg histoire ku gisul histoire kan lay histoireal du mën a histoire à parcelle balaa ñuy ñëw stade booy feesal stade bi gis nekk fii barina na mbooloo mi bari na ci biti amul foo teg sa tànk fii poste carré amul foo jaar ndax ay nit jàmm ko poste carré lan la ñuy xaar stade dal heure dem bu jotté ñu dem bu heure taxaw jotee ñu taxaw ya nga tuñ dara mais papa saw mu nekk mbeur bo xam mbeur waada la ta bu gaaw na beure tay lan ngeen yebee cité yéen ñi nga xam yeen na ko mo pendant ay mois combat bi ñu koy pousse diko poussat tay nan la wajé ci combat papa saw bu fas papa saw bu parcelle du ben ah bu fas ak bu parcel du ben ben bi papa saw bu parcel la papa saw mënu nax nit ñi mënuñoo lóore ba muy am katan ki la waxal parcel way deug d'origine parcel way nante yi papa saw bu mu nit ñi ba muy am kattan bàyyi leen sax xel boobu mu nga fële fas toog ñëw fële lijjanti ñu ko sax day xaar. jërëjëf Coly Faye. jaajëf yow jaajëf. raw. kaay bi kaay bi kaay raw. ndeysaan ni ngeen waajee mbër bi. si lépp. waaw lii lan la mbooloo si te ren Papa Sow soxla wuñ ko Papa Sow taxuñu jóg. déglu mbooloo mi déglu mbooloo mi. yee. ambiance. ndeysaan ñu ngi doon di woy. Cheikh Omar xale yaa ngi woy. yaram lii daa daw yaram lii lii ñun si dara la yam amuñu leneen ñun lu si sax amuñu ko mais du si dara wayalal xale yi du Papa